tey ñëpp a ñaaw li li xew université muy casse infrastructure comme wax parce que wax na ko mm-hmm. c'est l'argent du contribuable qu'on a mis rafet soo de temple du savoir rafet mu vert ñëpp kontaan si mm-hmm. donc euh, lii bi mu amee juin ñëpp a ko ñaawlu ko si dem ñaawlu na ko ñun mais ñun dañ fa ay jàngat dafa am ay paradoxe ak ay contradiction mm-hmm. sooy xool du université rek lañ tajoon de am na Auchan yu ñu tojoon bien sûr am na Dakar Dem Dikk yu ñu tojoon y des entreprises privées yu ñu cassé station Total mais ñooñu tey mais ils ont pris des yëpp a ngi dox yëpp a ngi dox. donc état bi nga xam ne tey moo war a garantir droit à l'éducation xoolal dans toutes les situations ñu nekk situation de crise sànq ñu ngi ciy waxtaanee Ukraine mais université yaa ngi daw. bien sûr nee naa dëkk yi daan am. guerre crise moo gën a dëkk yi am guerre sax soxna yi lañ doon jël. Gaza bi ñu wax nii Gaza xale yi ci tunnel lañ leen di jaarale. ñu jàngi bien sûr mais ñun parce que yaa a eu des casses ñu tëj université bi comme wax na ko sans concertation ni hmm. moo tax tey ñu koy ñuy ñaawlu loolu mu nekk paradoxe mu nekk contradiction bu rëy parce que des entreprises privées qui ont été cassées en même temps ils ont ils ont ils ont ils ont commencé à fonctionner ci jaaxal mooy dëpp ba ñu tëjee université bi ci lendemain bi la ay nit génn waaw ni nguur gi bëggul étudiants yi regagner waaw xam nga lan moo xam nga lan moo waroon lan moo waroon dañoo teel alerté ni nguur gi moo tëj université bi exprès parce que buggul étudiants yi. xam nga loolu c'est des hypothèses. mais xam nga professeur loolu c'est des hypothèses xam nga tey hypothèses yooyu am na ñu ne euh, yenn étudiants politiciens yi bokk kii bii ñoo ñëw toj. ñenn ñi dañu instrumentaliser wala fa dañu infiltrer étudiants yi. opposition bi moo infiltré ñeneen ñi ne nguur bi ci boppam ñoom ñoo ñëw pour ternir image opposition bi ñu kase mais léegi ñetti hypothèse parce que ku nekk am nga foo taxaw am foo far farde xam nga lan moo ko war a leeral muy enquête bu sérieuse du recteur moo naan am nañ ay vidéo fii am nañ waa léegi en attendant enquête en enquête bi na nit ñi dem jàng. déedéet non cinq mois on a des moyens un un mois. cinq mois lañ toog mais l' état avait des moyens. comme ni mu jàppee identifier ñeneen yi jàpp leen tëj leen. ñoom ñoo def lii. mais on a de état a des moyens université am nay moyens ay caméra wax nga ko. lépp parce que lu ay ay des personnes infiltrées ñu def une enquête objective sérieuse depuis cinq mois pour situer les responsabilités tey moom dañ koy exiger. université dañ koo war a ubbi. wax na ko sànq ñi ngi prôné enseignement à distance c'est pas la solution. Mm. c'est une fausse solution. mënuñu ko def à 100 pour cent même dëkk Europe man je de Barcelone yoo xam ne c'est une option xale bi moo lay wax dañuy def choix kii ne man présentiel laa bëgg dem kii ne kii ne à distance mais cent pour cent état ne ñëpp dañuy def. à distance loolu mënta nekk. loolu mënta nekk déjà les conditions les dispositions ne sont pas réunies wax nga ko sànq même biir. bi y a des réalités qui ne permettent pas amoo ordinateur amoo sax courant da ngay yor sa woyofal jékki-jékki mu coupé parce que amoo loo jëndee courant biir digg dakaar bi mm-hmm. amoo connexion nga ne ci ci da ngay forcer ñëpp ñu dem enseignement abi pour ñu c'est pas la solution solution bi mooy état am na moyen na jël matukaay yu war université yi ubbi mm-hmm. d'autant plus que c'est une partie de l'université qui a été cassée mm-hmm. donc euh, loolu moom dañ koy exiger c'est un appel qu'on lance état na jël matuwaay yi je veux dire le jeu politique wala poli politique bi mënul conditionner yenn yenn sous secteurs yi loolu mënut a nekk. mënuñu ne waaw février mooy élection yi dañuy xaar ba ba ba campagne bi jàll yépp jàll ñu xam fu ñuy toogee ñu ubbi université bi l'université ne dépend pas de certains calculs politiques mënul nekk d'autant plus que dëkk yi nekk en guerre ñi ngi dem di ñëw ñi ngi jàngi donc euh, je pense que euh, le la balle est dans le camp de l'État. état dina na dina recruter trente trente cinq mille gendarmes d'ici deux mille trente deux mille vingt cinq trente cinq mille gendarmes d'ici deux mille vingt cinq